ménagère am ndeysaan fu mu toll nii nag Ama Dia daa xew Ama Dia daa xew matu mooy ménagère am matu la siis ci añ bi te matoo taal matu la siis nga la maa lay fay. yow sa journaliste kii moo gën a bëri. waaw loolu la yàlla dogal li ni ko ñemee noonu doo doo si ñamal. Ama Dia ngi noonu. démb moo am moo daan jël bu rëy. ndeysaan. donc ndey fils de liir. bu ma jël bu ma jël. waaw maa lay fay. maa ngi jaam. noo ban mbégte. mbégte laa ma woon du léegi. pare naa si maa ngi si leneen. mbégte démb laa daal démb laa maa ngi si leneen. mais Amathia waaw waaw dañ nañ si lu métti mais yàlla lii waaw voyance adversaire la nga dox benn pas mu arrière nga doxaat benn pas mu arrière da nga doxee mu arrière nga doxaat mu arrière nga xam ne fii mu lay. ku xel la ma doon. ku xel la ma doon. waaw man boo mbër boo ma mënee ma ngay dem jàpp ko daan ko man du ma mën mbër taxaw di xeexoo moom ba jël ko du ma ko def. damaa xam fu ma ko jàpp li ma entraîné xëy si kawam ma daw attaque ko bu dóoree ma encaissé ko woon daw jàpp man loolu. mais mais jàpp fëtt na ko wala fëtt waaw bu fottul moo xam man sama yoon en tout cas ndam laa bëggoon am naa ko jeex man baal jaalu jaambur maa lépp lu ma ko wax si lu koy jégalu sama gerte la woon jeex na jeex na bu ma waxaat bu mu jëm suñu bopp waaw man damay ñibbi damay ñibbi nii suñu tonnerre bëri bëri da ngaa gis promoteur bu ñëw ne ma yaa ngi ngam mi mooy wër di dem di rattata di wax mais booy wax am mbër amul promoteur bu taxaw ne ma yaa ngi su doon dañ maa wax ma bañ ma wax mais kenn wax. mais lépp lépp nee na am ngeen contrat yéen ñaar. waaw wiiri wiiri bi jaar ak naare. dinañ tëggaat seen combat di ngeen daje yéen ñaar. waaw loolu amul dañ koy bëri. combat da koy yàq ñu dugal ñu si suñu jàmbaar dañ koy bëre loo waaw yow su def mag nga dugg waaw mag nga soxal léegi naa waa jàmbaar fay nañ la trois millions Badou nag kar nga moom yàgg yow man mënoo si man dara yow sama waay yow boo ma naree kar sax du sama nga yaa yow sama waay yàlla la yàlla defal jàmm mais journée bi ñëpp moom na xaar wax du bëri jarul man dama doon xaar sama combat passé bañ na ko lamb jox waxuma ko kenn waaw sama lamb passé na ma ne ma dinañ bëre dañ jël temps waaw waaw jël sa numéro. waaw mais sa xel mi seet na. waaw mu ngi tane fii moo ñëw waaw mais boo buggee daal faaw ma waaw bi ma ko bi may bi ñuy dóor yi maa gis ay kuur munu maa dóor kuur bu ma kaawee ndax maa ngi koy gis. dem nga génn génn bu doy waar nga jooy jooy métti jooy ñaaw sax. booy bu rafet bu soo ko booy yëpp a ñor. sa yëf moom daa doy waar. waaw yow da ngaa soxal yow jooyal ñu xool jooyal. nga ne jooyal na jooy. naan yii. waaw lii moom si man la bokk. waaw loolu dafa bokk. mais nu mu nekk Aba jël Aba Aba. waaw dara tuuti man maa ngi def loolu yónni bu baax waaw parce que man man ragalu ma may mais démb dama lool def na effet de kon waaw def na effet bu bii di ñëw dinañ dindi yeneen mais man waaw waaw aba sama digal doon na kon bu mu saabu saabu tànn lu mu wax damay def li mu wax nag ah mooy maa dama def ay saal ba dafa soxor moom yéene wu ma lool ah saal ba dafa soxor yéene wu ma depuis ba abaa waxee daf may jox bu may teg péré ma laaj loolu baaxul ni dangay am kóllëre sama combat may na ma ceeb may ma diwli Salba may na ma ceeb may ma diwli mais tamit liñ may may leneen waaw bu ko boole soo ko yéene jàmm yàlla na ko yàlla defal jàmm mais na ma soxoree li abaa li may may li ma ma yoonam neex loolu jóg man boo ma jooyul kenn du ma gis waaw kon waa yàlla loolu la dogal waaw loolu la yàlla dogal parce que yaa yor na dara man yoruma dara bu ma jooyul waaw yow sama mbir yow yow looy soxor si loolu bu la laajee Ama Dia kay nee na Ama Dia sama Ama Dia man nit ñi ñu waaw ma woo ma yor ma sama waaw yàlla la yàlla dama jàmm aw ma sa fay di ñaanal si yëpp jàmm man si moo ma génn man defuma si làmb dara ñii ñoo tax ma lu ma am ñoom la ñii dama leen refoté daa am nu demee nag képp ku woo maanaam toogu ñoo yow xel nga xalaat xam ni kii man nekkuma si yooyu man ku soxla da maa jot nitu nit ñi laa daw mindee ko parce que alxuraan daa am nu ay nit dañ lay woo si demoo ñu mel combat bi dama si daj. ba ma siwee ba ma siwulee sax kenn xamu la woon. waaw kenn xamu sit moo tax ñu xam sit ma jëlul woon kenn sit kese la. bañalu ma kenn mu jël parce que alxuraanu karim nañ dem ba si kanam ñëpp dinañ ko. incha allah. yow yaa ma kàr ba sama téléphone bi combat bi desee deux la yaa daa topp téléphone bi téléphone ba waaw. yàlla waaw waaw woote na mais seetaan ko ma xam. woote nga ci. waaw la ngeen waxante ne. li ñu lool xanaa seetaan ko. non man seetaan ko waaw da ngay da ngay man la soxla mais xam nga nit man dama ne woon ma taxaw di wax turam. parce que Boury na defu fi ma defu moom si ay defar la toog ma toog si ay ndam. kon du ma ko ci lan la toog. moom dafa toog si cinq défaites foofu man ma toog si ay victoire kon waruma kaa tukk maa ngay may chance. may chance barke alxuraan su buggee mu jël bu mu mu baax. mais Thiatou Yoff mag nee da ngaa daan turandoo dafa soxla sa combat. pour lan maanaam Thiatou Yoff mag mooy lu ma dóor démb rek doy man aw ku ku woon moom ànd ak moom. kon doo jël Thiatou Yoff. xalaatu ko doo jël ko. loolu mooy yow. am na promoteur bu ci bu ci joxe 30 millions pour yow. pour Bakal. yaa ngi caatu yow. 30 millions. moom na mu wóole li mu ko am lu mu fay. may naa